waa yëmbal yëpp aw ma seen fay képp kuy bége Ama Ama mu ngi lay bégee di la ñaanal jàmm man nitu dëkk bi laa man ñëpp man la ñuy supporter man ma war a daan boo su goree day baama daan ko waaw maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di gërëm ñëpp si di fi ñëw aw ma seen fay waaw nag gore baama daan ko loolu mooy l'essentiel. combat bi di samedi Ama Dia pare nga wala ma de ku pare bay open press nga ne ndax pare na man bu pare woon du ma open press dañuy dëgg. mais Ama ji dina la laaj pare nga wala pare goo nga ne pare nga nee ma pare ma. déedéet yow man ku ku ku entraîné bay open press kay lool mooy pare kon combat bi daj nga ci ay coono. daj naa si ay coono yu métti li ma si daj mënu ma ko wax fii. mës nga koo daj ci combat. mës naa ko daj moom wax dëgg yàlla. ci ban combat nga a daj. combat Buus laa gën a entraîné sax ko bii. lan moo ko waral. combat bi dama ko bëggoon ñàkk ko. mais xëy la si yàlla nam lépp lu yàlla nam si ñun na ko def. waaw làmb su dee tey jii man waa Casamance comme fii ma dëkk nii li may wax rek laaw yorelu ma kenn victoire. mais Ama Dia loolu ngay wax noonu loolu fan nga ko teg mbooloo mi lay topp supporter yi lay nga ne ameeloo kenn ndam fan nga teg loolu. waaw ah. mbooloo mi la. ak fan si nga ne ameloo kenn ndam fan nga teg loolu. loolu yàlla mbiru yàlla la mais man du ma yàlla de man mayewu ma ndam su ma doon maye ndam du ma dem stade damay taxaw fii ñu yëkkat sama loxo. mais Ama Dia def loo xamante ne si dina la may ndam. maa ngi def lu ma mën def lu ma mën weesuwul ma nekk fii di xëppoo suuf ak a bàqu weesu maa ngi def lu ma mën mais dama ne la yoree lu ma kenn ndam ndax du ma yàlla yàlla mooy maye yu yàlla ndam si ñun ne lii mooy am na ko def mu am bu dee maay daanu naa daanu bu dee maay daan yàlla lu mu namm si ñun na gën si ñun lépp lu gën si mun na ko yàlla def mais man damay ñaanal sam bopp ndam waaye su dee defet moo gën si man na ma ko may waaw bu dee moo gën man defet du safaan su dee moo gën si man laa la wax na ma ko may. waaw mais Ama Dia nan nga nar a ñëwee fa li nga xamante ne mooy si Ama Dia biir arène nationale. mosoo gis sama dugg si. déedéet mosoo kaa gis. déedéet Madu da ngaa soxor de. yow ñaata yoon laa ñëw stade di la ko fekk yi njëkk ak dugg bi wute. lan moo leen wute ndax fi mu siiw nga ñëpp xam nañ la def nga bës ci réew mi dugg si biir nan nga nar a dugg see fii ci arène ah déet yow bu dee na laa naqari kay da ngay wax man lu ma siiw bu la naqare loolu sa problème la man li jëndiwuma la. maa ngi ñaan man nga nar dugg see biir arène nationale. ba jour ba mënu ma la ko wax fii man maa xam daan naa fekke suba waaye mën naa dee léegi nii yàlla mooy mooy moo xam luy xew suba xaw ko mën naa génn fii dee. wàcce ay loxoom Ama Dia nan la naral adversaire am. ma dox si kawam ni ma daan def man du ma arrière mindeef góor buy taxaw sama kanam damay dem. man man samay combat du goy yuutim nga seetaan képp ku ma daan sama ëppal nga ma daane mais du damay arrière arbitre musul yëkkati musul def ma nii avertir ma musul am ndax man xooma lool man danga may daan wala ma daan la yàlla mooy maye nag mais su ma duggee si géew gi danga may daan wala ma daan. parce que daa am ñu ñu topp moo tax may taxaw sax di xaar waaye man musuma xaar. xaar. loolu soo yoon nekku si. baal bañ dem stade. mais sa waay changé sa verre man li def yow du yow yaa koy wax <laughs> waaw déedéet yow li ngay laaj du question. mais da nga jaaga xeex sa adversaire waaw wala déet. loolu mbirum yàlla la yàlla moo xam lu may def mbirum yàlla amu fa ndax yàlla yorul ay kurpeñam yaa yor say kurpeñ di dóore. matu xanaa da ngaa mer <laughs> man kuy man damay dem esaat lépp lu ma duggee si géew. lu ma gis sama bët may ma ko ma war a dem damay dem lu ma gis baaxul du ma dem. parce que li ëpp moom ko man ko amul bëñ aw ma lu may wax moom. na poosé ji du maag moom poosé la gis naa ko gisee gis naa ko démb. ñeme yàlla. jëli naa ko interview man daal may wax na ma yàlla may ndam ma loolu laay ñaan. li ngay wax ni yow amul solo ñun yàlla yàlla ñuy ñaan yàlla mooy may yàlla nañu yàlla may ndam su dee victoire bi moo gën si ñun nañu ko yàlla may bu dee gënul si ñun nañu may leneen. mais nga open presse tey gis mbooloo mu takku mi nii lan la la def ba nga dugg see gis mbooloo lan la may def man maa woote ni ñu ñëw ta tama fu mu nee rung ñëpp ñëw man indi wu ma leen de tama moo leen fi indi am na ñoo xam ne tamaa leen fi indi. ku li ñu gis nii kon xanaa nag li a xéewloo ma waroon am si làmb sax dootuma ko am ndax nga ma man li may def man la concerné. maanaam ci mbirum añ bi lay añ bi di nga toog wala doo añ amul. añ dina am nag ñi la añ nag. matu kan moo ma añ. gis naa ñi la wéef. Fallou Fallou Diop maa ngi koy sant. Fallou Diop wéef na la. booy yow da ngaa gis fu ma abaa wéefe Fallou Diop moo ma wéef xaalis. yaa may dégg ne ma naa togg añ. yaa may dégg muy nit ku baax ma koy ñaanal jàmm di ko wax gis naa lu mu def mais xaalis bu ma jox si tike yi laa ko dugal ndax lu ma bolok togg maañ day leer moom li ma jox. si liggéey laa koy dugal pour may ko booy ndax jëndaluñ ma. mais journaliste yi nga am. Babacar non. ñëw jël sa départ kon du ñaañ. yow da ngay jël. damay añ. yow añ moo la fi indi yow añ. ça va yow da ngay de man liggéeyaloo ma yow la ñuy fay man fayee ko si man. non man liggéeyaloo ma de bu dee lool nga toog waaw bu bu dee lool man maa la indi aña la indi nga toog man tooguma yoruma supporter li ma leen waxaat rek man samay supporter li ma leen waxaat damaa taxawoon si open press wax ko yaa may dégg moom laa leen waxaat tooguma añ tey tooguma añ suba yaa may dégg yoruma xaalis bu ma toogee euh, kii Fallou Diop xaalis bu ma jox moom moo ma ko may si xol bi seet ne ma toogal añ si samay nit yoruñu xaalis mënuñu jënd mënuñu dagg sax ticket bu 1000 francs benn bolok lañ ma jëndal benn bolok bi matul. yaa ngi dégg su dee bëgg nañ ma toog. Ama Dia yow ni nga toll dayoo bi nga toll ngay jënd benn bolok. yoruma xaalis man instant yi benn bolok bi man maa ngi fas yéene jël sama xaalis jënd ko xaalis bi ma waree toog yaañ loolu say matul bul soxal téléphone matul jënd ticket xaalis bi ma yor pour toogee dama koy dugal si ticket may leen ko ñu dem buñ mugee ma toogu añ. bañ a maye ticket. Ah. bu leen neexee ñu ngi nii laaj leen luñ bëgg wax. Ah. waaw. laaj. añ amul añ amul. waaw maa ngi nuyu ñëpp. looy wax ba pare Bamba Faye sama combat bi paas moo ko tëgg. Ah. waaw bii moo ko tëggaat. mate bul bul bul kar loolu baaxul. Bamba Faye sama waay la. moom daf maa bëgg a ay nitam sax. tëggal mbër di ko booleeg ay nit pour ñu jàppale ko Bamba Faye aw ma fayam dama koy ñaanal jàmm li mu bëgg si man yàlla na ko yàlla defal combat bi dafa forcé dugal ma si man pare wu ma woon làmb ji la kaat laa doon pare waaw mu yàqu mu fexe ba dugal ma si Bamba Faye maa lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm képp kuy sa mbokk maa ngay ñaanal jàmm yow sama nit nga sama xarit nga kontaan naa si yow sama turandoo ah musu ko def nag mu ngi koy doo ko def maa ngi koy sant tey di ko ah, gërëm ah, maa ngi koy sant di ko gërëm bada teeyal rek naa tant jëla sa rek maa lay sant di la gërëm non añ amul pour gaa yëpp xam ko man tooguma du ay mbalak de yoruma ma dama yorul su ma yoroon rek dinaa toog jaru ko maa ngi sant maire Pape Doumbouya aw ma fayam di ko woo si combat mu jàppale ma combat bi trois jours si des ñoom dañ ma waa yëmbal man waruma woon taxaw fi nee man mbëru askan la mbëru askan boo xam yorul dara yoru soo lum toogee benn bolog mënuñu ko jëndal kii Babacar Karinton moo ma may moo may benn bolog moom moo ma jëndal bologu maa ngi koy ñaanal base bee ñu tak base bi ma tak fee moom ma ko defar lépp may ma xaalisam Babacar kooku aw ma fayam li mu def si man yëpp gis naa ko tax daf may booleeg ay nitam Yaasin Diop mooy kii nekk si TikTok bi tam may def nii di ma toppandoo koo am ma fayam daf ma booleeg ay nitam maa ngi koy ñaanal jàmm caane bu yaraax aw ma fayam astu bu yaraax aw ma fayam ñoo waa yaraax aw ma seen fay ñu ngi nële taxaw dañoo juge fu sori matu lool bul ma catu maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di gërëm ama ja bu baax a baax waa groupe bi sama groupe lii fayu ma fi dara open presse bi waa groupe bi sama groupe whatsapp bi ñoo dajale seen xaalis defal ma ko. waaw te yàlla tax màgget màgget aw ma fayam mbay cuun aw ma fayam du ko wax day jékki-jékki sax envoyé ma xaalis te du ma woo mais doo ñam nag maa ngi ñëpp képp ku nekk si groupe bi maa ngi lay ñaanal jàmm di la waa Ama yéen a ko moom. man dañ ne mbëru askan laa mbëru askan boo xam amul lu mu toogee loolu du yoon te man mbëru dëkk laa léegi ñëpp dañ may supporté ay nit dañuy ñëw ba waaw kon autorité bi yëpp woo waxuma kenn damay woo ñëpp ku ma mën a jàppale nga jàppale ma benn bolok kese. lay wax mbaru yëmbal yi ñëpp ñëw tey ñoom Bib Diop ñëpp. Bib Diop bu ko tudd. Ah. kooku baaxul dafa soxor. waxuma ak Bib Diop waxuma ñeneen ay booy waalo. ñoom booy pir booy yëmbal. Euh, lees euh, jaay doole rëm ñoo ñoo ma doon may contact bëloo aw ma fayam ah, ñoo dañuy sonn si man barki alxuraan ku si mel ni jaay doole aw ma fayam day dagg yu xaarim garga waa yëmbal mbooloo ñoom lees ñëpp maa ngi leen sant deef ordinateur aw ma fayam sama nit la soo ah ah tisat bat waaw kii gis nga kii nii waaye sa waay looy ree sama mag la barke alxuraan sama mag bu baaxoon si man bi may sama combat yi passé daf ma woo wax ma lu daw yaram boobu yàlla jëlagu ko tey yàlla jël ko mo rama defal ko nii ndaam gëy Naam Gueye maa koy ñaanal jàmm Bib Diop da ngaa soxor nag baal li ngay def bul yàq bul yàq lii bi non ba sa bee paase yaa ko yàq Petit Niang ma fayam mais Petit Niang waruma ko sant entre salle entraînement yi métti la ma doon moom ak kiriku rëm rëm bu mag di ma waa di ma def lu métti entraînement di wax waa Sénégal man damay entraîné Petit Niang day bàyyi ba ma ba ma ba ma mu dugal li ma sonn li may def normal du ko dugal moom day bàyyi ba ma sonn Yaasin Sarr borom ñaax nee na dina ma jox cinquante mille maa ngi koy xaar Yaasin Sarr samay cinquante mille bor la man ku ma Pape Sakho kalla Pape Sakho xaalis bi na ñëw maar yoreel na ma quinze mille na ko dugal yoreel na ma quinze mille ba fayu ma ko waaw kii kanji kanji dani ma woon dina ma jëndal bolok gisaguma ko ah, abaa dani ma woon dama lay jox añ léegi naa dafa tukki maa ngi koy woo fan yëpp jotuma ko bu ma toogul añ nag na ko ñëpp woo wax ko yaa tey booy bi nay leer alima njoon waxoon na ma dina ma jëndal dina ma booleeg ay nit boole na ma ay nit ah. waa tima ah. di nuyu tima matu nag noppil tima moo ma boole tima tima di sonn si man di ma jëndal yére lépp aw ma fayam waa di ñaanal waa Sénégal yëpp nday géey aw ma fayam bu papa booy jinne di ko ñaanal jàmm waaw daf may woor lépp sama waay la wo sama jabar jaru ma koy gërëm chaque jour ma gërëm ko loolu yow li jënti sa bopp rek sama jabar ma di gërëm sama jabar yi nekk si kër gi yëpp ñu amaaraa du ma ko sant kooku li ma def rek jaru sant meew bii du moom joxuma ko. meew bi. meew bi maa ko fi indi meew du ah moom ko jox. foo bi ma toj. loolu du sa problème. mais moom yoon nekku si am daa sama waay la sama waay la. waaw waaw ñu ngi ñaanal waa Sénégal. wa waa Ngor. ah moom ay na ko si def ba saf. Ah. bu dee mooy daal. waaw mais bu bu ko si defee. da daanu ma moom ñëpp dinañu dégg. wax naa la su deful effet de am problème mais bu ko mu jël camion dugal ko si naa daan rek amul problème waaw di ñaanal ñëpp jàmm sit yi aw ma seen fay di leen ñaanal jàmm di waay waa yaraax aw ma seen fay waa Kambure waa parcelle fils de liiru maa lay sant jàpp nga si combat bi yow sama waay nga mm-hmm. waa parcelle yëpp waa Kambureen maa leen di woo waa Morala fi ma dëkk faama faama faama du ma ko fàtte kooku sama waay la baal naa ko sant demal rek yow da ngaa soxor faama sama waay la di wax sa yaay na jàpp si làmb ji làmb ji làmbam la waa Faat Kiné Diop waaw mouvement yëmbal la kooku day jàppale nit ñi moom na ma jàppale Bib Diop noppil waa maa ngi ñaanal ñëpp non non kii dafa soof waaw kii dafa soxor moom heure booy open presse day ñëw di jéem a yàq loolu baaxul ne da ngay am <laughs> maa ngi koy woo di woo Baara Gaye waali na ma jàppale sama mag moom la nekk daf ma war a jàppale force waaw maa ngi koy ñaanal jàmm matu xam naa ne sonn nga yàlla na la yàlla fay yow sama nit nga waa garage aw ma seen fay maa leen di woo waa quartier baas waaw waa quartier baas waa Free Life waa deuxième étage waa Anes waa Faga maa ngi woo ñëpp waaw état damaa joom bi moo tax ñëpp laay woo ku ma mën a dimbali na ma dimbali kii dama ko war a daan matu kii waruñu taxaw une minute ah! barke alxuraanu karim waa ànd juboo sama équipe la ñoon jaruma leen sant ñooñu ñooñu samay nit lañ loolu baaxul bu jaxase ah samay nit lañ waa am juba maa leen sant waaw di wax ñëpp daal nañ ma jàppale maa war a daan yow xam nga ni sax maa daan boo bi na pama daan ko waaw lool la yàlla dogal yàlla man tey ñun waaw man la àndal jamono ji mais keneen day ñëwaat balaa keneen ñëw ma def lu ma war waaw loolu laay ñaan yaa am na ñeneen boo yoo xam dañuy ñëw te dama leen yéene ñu ñëw li ma yor ni du man kese maay taxaw di ko yor ba avis munul nekk maa man yéenewuma kenn lu bon képp ku ma yéene lu bon yaa na la yàlla defal jàmm man du ma du ma xalab kenn du ma tooñ estat sax dama fay def lu ne yéen fekk ngeen niñ ma fay def mais damay muñ su ma demee ba saaga rek damaa lii ma képp ku ma mës a maa ngi lay jégalu waa Sénégal di leen wax man yéenewuma kenn lu bon maa ngi ñaanal ñëpp jàmm waaw añ amul waaw jërëjëf matu